li ma ngir yàlla suturaal ma nga baal ma maa mm-hmm. baal ma moo mm-hmm. war a yow yam sama diggante man yoon ndax tudduma di ci jëmi diw tudduma ci demi sàmba ngir yàlla laa la wax nga baal ma bu fekkee danga may baal te yàlla rek tax ñun ña fa nekk war na fa mën a yem te moom muy def ngir yàlla sëñ Moustapha waaw te di bu fekkee ngir yàlla rek ngay dox xam nga xam nga question boobu dama koy dama ci jaar rapidement jàll mm-hmm. parce que intéressé wul ma waaye li benn politicien di wax mooy Ousmane Sonko li Sonko Ousmane Sonko li mu faral di wax waaw man loolu yàgg naa ko dégg ma ci bàyyi xel mooy après loolu ci laa doog a bàyyi xel loolu mooy Sénégal yi ñu mukk ko tooñ liñ xam daal mooy ko fayu moom daal li ñu bëgg mooy nañ la tooñ sax dàkk ci di la tooñ nga muñ ba dee benn nit da tooñ du la jëggalu ba nga yëbbu ko ci yoon mu doog a jëggalu te ba mu jëggaloo baaxal nga ko te yëbboo ko fa pour lu bon dama yor soxna yoon jaboot bokk ci fay mu baax am nawle boo toogee ne diw dafay def nangam te man mi nga ko waxal may gor am ay naalu yu may sibur war naa laa wax kaa ñu nga wax li ma wax ëndal waaw sëñ bi waale li ngeen koy def bu la baaloo bu la ko mhm. est-ce que jot na jël vidéo yi di ko publier Tamba sëñ Moustapha dafa génn fa am maanaa ca sëñ Moustapha <laughs> yéen yéen en unanimité da ngeen di xëy di di di di di yàq waale lu ne ci deram bi ñoom daa mel ni waale waale seen yéegu waale ah may ma may ma fa ma leeral xam naa waale li coow li bëri bés bee bëri moo tax euh, leen wax jooju mooy dama ma sañoon dañuy Youssou li mu Youssou li laaj ba solo la de. Youssou yéen Pawlish nga yóbbu ko de. ah leen xam nga charia. Mhm. xam nga sànq lii mooy. citation directe di def. xam nga ci alquran nee ma war benn affaire xam nga sànq ñu ngi ci alquran. Mm. li indi sëriñ si léeg-léeg ñuy laale ñun ñëpp loolu moo ko waral. bu yàlla waxee ci alquran ne. wa mina naasi man yastari lewal xadis li yudilla an sabilillahi bi xeeri xalmin wa yetiqitahu soo ulaaka lu muy nun loolu mystique rek la fa yàlla wax bu dafa xaraam ma jàng ko xam ne dafa xaraam ka ma ko jàngal téeméer nit ñëpp dëppoo ne borom xam dëppoo ne yàlla musique la ci wax bu ñu taxawee ni yàlla dafa wax ngeen ngeen duma borom musiciens yi ngeen duma leen ci àdduna yàlla duma loowu leen ki ngay wax ñun li li li li kii naan yàlla du yónniwu leen du ngeen ay yonent yàlla duma loowu leen musiciens yi wax fa dëgg yàlla ba pare dafa am lu ma dégg nga wax da nga ne yow da ngay gis jibril fooy gisee jibril mënu maa tontu fukki question te tontu na benn doy naa boobu ci question yi. Jibril daal bëgg naa nga wax ma. waaw noo koy noo koy gisee. dama ne la alayhi salaam. am na am na lu gën a dama dama ne la day. may seetaan ñëpp di samay nawle. bokk ca di wala murit mën a dox. gént gi Jibril alayhi salaam da ne da koy gis semaine bu jot nga ñaari yoon. dama na la man jamono bu nekk damay gént gis Jibril alayhi salaam laa wax. ci ban melokaan. am na lu a loolu. mooy yonent bi kat yonent bi kat ba mu ne ba mu ne yàlla. dama bëgg yonent bi kat ba mu ne ba ne ba mu ne ba mu ne Jibril dama bëgg gis sa jëmm Jibril daf ko ne tàggul yàlla. bu nangoo ma woon la sama bopp ba yonent bi tàggoo yàlla ba ba ba yàlla nangu mi ne yonent bi xoolal fu ñuy daje ñu tànn Arafat waaye la ca xew gannaaw ga xam nga ko mais yow boo ma bëggee nii da ngay gis Jibril yow. ma ne melokaan woo xam am leeralal ma melokaan yu d'abord. yuusu yuusu damay bañ nga juum. yonent bi ba mu gisee jibril dafa xam. ban jibril la la mais jibi njaay la la wala jibril alayhi salaam jibril alayhi salaatu wasalaam lay wax ci am. nga ni. jibril jibril jibril alayhi salaatu wasalaam malaaka mi. malaaka jibril ah, malaaka ah man pour ay jibi njaay ngay wax wala ay jibi juuf ah yéen teel waaw xam nga euh, li bu ma <laughs> bëgguma. dama la wax benn affaire. lii bëgguma di ci wax ak yéen. lu tax yéen gis nangam li tax mooy. nit day wax dara muy lu wet nga toog weddi ko martaba ba rëkkelu ci kaw gis nga bu fekkee yow li nga xam mooy tëdd nelaw yow li nga xam fekkee li nga xam mooy minu nga tëdd nelaw ba seedi matin yow doo gént sax gis sa bàyyi dem ba sàq tëdd ma ne ba pare rek sëñ Moustapha nag moom. même moom wax la benn affaire. moom moom ay wax. waaw waaw ab julit ab julit. pourtant yaa ngi wax ni kii bu dafa war a jaamu yàlla subhaanahu wa taala bépp ku julit war ngaa saxoo ci sa bopp bi jomb trois heures du matin fekk nga tëdd. lan ci. fekk la sa lal. nga tëdd. di ndax mu tax. bu fekkee xamu ne jaamu yàlla nelaw nit ku nekk war nga deux heures et demi nga jóg jàpp ba sell sa adduna yëpp laa wan sa dund yëpp deux heures du matin nga jàpp nafila sa jóg nga trak nga toog deux trois heures zéro minute ba trois heures ba quatre heures cinq dix nga sigal fukki junni istifaar ak ñaar soo paree nga teg ci bismillah fukki junne maanaam douze mille cent douze fukki junne ñett téeméer fukk ak ñaar soo paree fekk jàkk ji salaatu nga waaxu day julli juwaale day fas fekk yaa ngi fas 1854 salaatul faatihi ñu julli ba noppi nga toog fi nga toog def salaawaat ba pare continuer 1854 fekk mu pare. 7 di ma tey jot balaa 9h ci suba. Mhm. nga war a xëy yi laa wax. nga war a xëy liggéey nga war a xëy liggéey. Mhm. war nga fexe ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yaa salaamu nga fexe liggéey ko 12000. lu tax yàlla binduñu fi pour ñu nekk di nelaw te gis nga képp ku bëgg gis. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoo ko amee ci reer ba sa biit fees nga tëdd lekk ñaar bés bu nga tëdd nga bu set. waaw ku nelawul nooy génte. génte gis Jibril alayhi salaam xanaa xamul ne xanaa xamul ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gisu eh, nga ne ko. ah nelaw ay tax a génn. ma ne. yonent bi sallallahu day may dul ma wax. te moom day génn gis Jibril li ma wax xamul leen ko amul ne resu bu ngeen ko may déggee parce que xamul leen loolu. yàlla dana dimbale gis nga nit yàlla dina ko dimbale fi nga toog di jàng certificat yi sëñ Moustapha fii ku xamadi toog dafa ndànk ah? fii euh, lan la wax da nga ne xamuñu ma ne la ko xamadi toogu mhm. ay dof sëñ bi yàlla mën na laa may nga toog fi nga toog jàng certificat yi nga naasir xaq bi xaq bala ngaa jeg ci wala dii gi yàlla roof la nelaw ci lu matu cinq secondes wala yént bi sallallahu alayhi wasallam loolu day am mhm. yàlla mën na ko def wala nga gis jibril alayhi salaam moom neex na neex goo xam ne ku ko am waratu sax yow lan gént yonent bi neex na neex goo xam ne ah. jar na taar tardé fajar gént yonent bi neex na neex goo xam ne uh-huh. ku ko am waratu sax yow ndax yow dootu la yomb lu ci neex gént yonent bi ci neex ah yow mii di ko yow mii di ko di ko di ko kiraamoo kay xam nga li ci neex. ku kiraamoo déglu ma xol nag. li ma ngir yàlla suturaal ma nga baal ma. Mm-hmm. maa la tooñ baal ma. Mm-hmm. ma war a yow yam sama diggante ma yow ndax tudduma di ci jëmmi diw tudduma ci jëmmi sàmba ngir yàlla laa la wax. nga baal ma bu fekkee danga may baal te yàlla rek tax ñun ña fa nekk war na faa mën a yem. te moom muy def ngir yàlla sëñ Moustapha waaw. te di bu fekkee ngir yàlla rek ngay dox. xam nga xam nga question boobu dama koy dama ci jaar rapidement jàll. Mm-hmm. parce que intéressé waaye li benn politicien di wax mooy Ousmane Sonko. li Sonko Ousmane Sonko li mu faral di wax. waaw man loolu yàgg naa ko dégg mosuma ci bàyyi xel. mooy après loolu ci laa doog a bàyyi xel loolu mooy Sénégal yi xamuñu mukk ko tooñ. li xam daal mooy ko fa fay moom daal li ñu bëgg mooy nañ la tooñ sax dàkk ci di la tooñ nga muñ ba dee benn nit da tooñ du la jéggalu ba nga yëbbu ko ci yoon mu doog a jéggalu te ba mu jéggaloo baaxal nga ko. te yóbboo ko fa pour lu bon dama yor soxna yor jaboot bokk ci fay mu baax am nawle boo toogee ne diw dafay def nangam te man mi nga ko waxal may gor am ay nawle yu may sibur war naa laa wax kaa ñu denc gendarmerie nga wax li ma wax ëndal. waaw sañ bi yéen waale li ngeen koy def.